xibaar yi dañ koy door ak euh, jëye ju xew euh, biig euh, ci hôpital Maam Abdou Aziz Dabakh bu Tiwaawan fukki liir ak benn faatu ci ci service néonatologie ci xibaar nag court-circuit ci courant bi kon moom moo indi lakk googu ministre de l'intérieur ci guddi gi sax la daal di dem le ànd ak délégation bu am solo mu xam ne ne nag njiit mi ngi koy métti sàkk na sax ñu ubbi enquête ci mbir mi Cheikh Anta fii ci service néonatal ñi ngi ci ñaareelu etaas bi boo yéegee xetuk saxaar si di la xër miir yi ñuul kukk lal yu ci bëree lakk. boo bi. ay tout tànk ñoo fi nekkoon. ñi doog a juddu ñi matagul ak tout tànk yoo xam ne dañoo amee jàngoro. fukk ak benn ci ay tout tànk ñoom ñoo faatu ci lakk gi. soxna si di maam Anta Sey dëkk ba Pekes moom tout tànkam de ci la bokk. dafa feebaroon ma indi ko ci la gaañ waaw. ci lakk gi la gaañ. waaw mais yow bi muy am fu la fekk. bi muy am mi ma fekk fii ndax man fii laay fanaan bu ñëwee ba léegi amuñu sax fu fanaan. fii amuñu sax mbokk. fii la ñuy fanaan chaque jour. àjjuma ba léegi ñoom. bu ma xëyee damay dem di ko nàmpali. ci verre yi lañ ko dugaloon. déedéet moom mat na sëkk. dafa amoon rek feebaru zone bi. pays. waaw léegi ñu ko doon faj nag foofu la nekkoon ci bunt bi leen yam ñu jox la sa doom boo ko nàmpalee delloo ko tey sax nàmpul tey nag gisuma ko sax maanaam bi mbir mi am ñoom bunt bi dafa tëju woon xanaa kenn nekk foofu bu fa kenn nekkul xam nga ni dina am sax ñun génne ñoom bala ñoo génne seen bopp xanaa dinañ jàppale sax bu doon benn litre sax dina génn waaye dañ koo tëj dem xanaa doxi seen soxla wala ñu dugg ci yeneen saali jëwriñ ji yor wàllu biir réew mi di Antoine Diome àndoon ak délégation bu takku ginnaaw bi mu nemmeekoo saal bi ba pare wàcc biral yóbbal bi ko njiitu réew mi jox président nag wax ñu ni boo leen yeggee na ngeen ma massawul bu baax ñi nga xamante ni ñooy yaayi xale yi massawul ma seen ay famille waaye tamit ngeen masawul ma xamal ma xalif général de Tidiane ni ko lii nga xamante ni mooy tiis wi am tey Tiwaawan ñoo ko bokk man ak moom man ak njabootu Seydi Aji Malick Sy radiyallahu taala anhu bi yëpp mu ni ma ci saase nañu ubbi benn lanket ngir xam li xew lan moo ko waral waaye bu weesoo du ci yem wax na ni nañu saytu lépp loo xamante ni mooy jumtukaay te ñu war ko jëmale ci xale yoo xamante ni dañuy doore gane àdduna soxla ay machine taxawu leen ngir seen wér-gu-yaram sëriñ Mansour si ibnu sëñ Abdou Aziz Sy Dabaax teewaloon nag xalif général des Tidianes àndoon ak famille Seydi El Hadji Malick Sy doon indi njaalam teg ko ci loxo ñi nga xamante ni seen tout tànk yi génn àdduna moom sax béral na ne xalif général des Tidianes di sëriñ Babacar Sy Mansour sàkku na képp kuy jullit de ñu wàcce kaamil ci jumaa yi ci àjjuma ji ñu ñaanal tout tànk yi rawatina ñaanal réew mi mu am dal ak jàmm RFM Thiès Cheikh Anta Diop Cheikh Anta Diop euh, président Macky Sall lu weesu la mu yebal ministre de l'intérieur foofu ci Tivaouane def na tamit benn euh, tweet euh, moom njiitu réew mi wane naqaram ci loolu nga xam ne xew na sàkk tam ñu daal di leeral mbir mi tey di ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr moom tamit daal dina yëkkati kàddu ci mbir moom xew ci Genève ga mu nekk ci réewum Suisse ngir teew ci assemblée mondiale de la santé nettit lu li nga xam te ne xew na nee na sax day daal di euh, teg lépp ci suuf daal di ñibbi si fii ci ndakaaru gannaaw jëy jooju nga xam te ne xew na euh, ab syndicaliste nag moom sàkku moom Abdoulaye Diouf Sarr ñu tekki ndombal tànkam Mamadou Marba lu mu néew néew fukk ak benn liir faatu nañ ci lakk googee ca Genève gi mu nekk ngir assemblée mondiale de la santé Abdoulaye Diouf Sarr di joxe xibaar yi njëkk ci jëye joojee court circuit la ñu ma wax euh, moo am si euh, donc euh, service boobu xamante ne fukk ak ñetti place moo fa nekk mais fukk ak benn ñoo fa newoon si bi ñu bi di am amoon na infirmière yu fa newoon jëm nañu donc sauver xale yi mais malheureusement d'ailleurs am na ñaar ñoo xamante ne newoon nañ si état bu xaw a metti ci d'ailleurs yàlla jàppale na leen jëwriñ ngi dénk liggéey bi muy amal foofee mu bëgg nag bu eggee tey ci suba dem ci hôpital Mame Abdou Aziz Dabakh bu Tivaouane assemblée bi te war na dem ba dimanche mais man euh, écourté naa sama voyage demain matin incha ma jël euh, donc a dellu si dem directement au niveau de l'hôpital def effectivement la situation taxaw équipe bi lu mu ci mënti doon Alioune Aw di fi yoroon kàddu syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale ne jëwriñ giñ dénk wàllu wàllu wér-gu-yaram mi wane na tëleem. tous les trimestres euh, am na un drame dans nos structures hospitales ñu moom mu nekk fi. mais moom dafa war a non dafa war a assumer ses responsabilités. et démissionner mooy ah, mooy mu démissionner parce que mënul continuer depuis deux ans depuis deux ans trois ans. ah avec tout le mal que le système est en train de rencontrer ñu nekk chaque fois ñu colmaté di ko fi bàyyi. ñu ne nag court circuit moo ko waral maanaam courant bee masse jur jëye ji moo ne de ci Alioune Aw de la vérifier lépp luy installation ci hôpitaux yi. Mamadou Oumar Ba jëy jooju xew ci ma Mame Abdou Sida Babou Tivaouane euh, way politique yi daal nañ ci àddu coalition Yewwi Askan Wi jël na dogal dakkal bépp yëngu-yëngoom ci biir réew mi waaye tamit ci bitim réew diirug ñetti fan ñoom nag yaakaar nañu ne daañu jël matuwaay yëpp ngir lu ni mel bañ amati ñu tamit masawu njabootu liir yooyu faatu. lu ni mel tamit la ko aar Sénégal eh, defee ñoom tamit ñu daal di méttitu li nga xam ne xew na eh, sàkku ci nguur gi mu fexe daal ba mbir yu ni mel daje am te ndaxte mi ngi tàmbalee bëri ñoom ñu fàttali ne sax bu yàggul dara amoon eh, ñeenti liir yu fàttoon ci lakkatam ci hôpital bu Linguère